ba tey ñu ngi ci kàddu seede yi euh, oustaz Fadel Gueye dootuñu ko présenté bokk na sax si association bi ak yu bëree bëri bëri di yëngu ci diina gi bu baax a baax a baax tey mu mel ni ki suñu mbokk sa mbokk sa wóllëre génn na àdduna yan seede nga koy seedeel ci liggéey bi nga xam moom noonu loon liggéeyal suñu borom. jërëjëf Pape Maguette ma ginnaaw ma la nuyoo nuyu mbooleem kuy liggéeyee Sénégal maa ngi leen jaale li ñu bokk muy suñu mbokk Al Mourchid Ahmed Iyane Thiam hmm. Maguette vraiment. on vient de perdre vraiment un grand homme nit ku am solo nit koo xamante ni yaakaar naa liggéey na ci diine ji liggéey boo xamante ni dootul fayati ba mukk Ahmed Iyane Thiam euh, man bi ma koy xam boobu mën naa ni ndaw laa waaye fa mu nekkoon ba ma koy xam ba bi mu fii bàyyi koo tey position yi mu daan jël benn la jullit ñi ka nga xamante ni daanaka moo ko yitteeloon musu cee jóg musu cee jóg donc nit la koo xamante ni nit ko amoon solo la maa ngi wax léegi ni UCM bi mu koy sos booba yi métti woon na Sénégal mu fexe ba doomi soxna yëpp di ay xale yoo xamante ni dañ demoon monde arabe jàngi am seen diplôme ñibbisi mu oole ñoom ñëpp ci réunion wala leen ñi leen ñun war nañ sos kuréel goo xamante ni rôle am mooy fexe ba magu senegal yi li ñu liggéeyee lislaam li ñu liggéey ci yonent bi li ñu liggéey ci defar jikkoy nit ñi euh, ni ñu jaamaarloo ak colonialiste yi malgré pexe yi nga xamante ni tubaab bi laloon na ko pour faagaagal jikko yu baax faagaagal diine ci Sénégal mag ñi fexe nañ ba préserver pas-pasu l'islam ba tey Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent di ay jullit ñu association bi di koy tax a jóg mooy fexe ba mag ñooñu ñu rendre leen hommage fexe ba addina bi yëpp xam li nga xamante ni liggéey nañ ko ci diine loola def na ci jéego yu am am solo taxawoon ci ak ñu bëree bëri ku mel ni Ahmed Bachir Kounta ku demee ni ki ñoom docteur Khadim Mbacké ku demee ni ki ñoom Oustaz Ismaïla Dem ñu bëri liste bu gudd na kenn ba ci ba jafe-jafe yi nga xamal ni sax mën nañ wax ne dund na ko dégg na lu ne ci korité beeg tabaski mais lu mu daan wax rek mooy liggéeyal suñu borom rek ñëpp bennoo nekk benn ak wax ju tey ji na ko daan wax. loola nag laa gëm ni eh, nit ñi war nañ ko jël ci moom hmm. surtout génération yu mujj yi hmm. war nañ jël ci moom am fulla fulla joo xamante ni doo tontu détail hmm. euh, monsieur Amed Ndiame mos a nangoo tontu détail commission weer wi nga xamante moom la jiite woon dégg na ci lu nekk saaga ko xas nañ ko mais doo dégg mukk bu la mu daan wax rek mooy liggéeyal lislaam daal mi ngi noonu bennoo ñëpp nekk benn fexe ba kër diine yëpp foofu dem fu nekk rek Moussid Ayaan amoon na fa wàccuwaay dégg ko léegi bi ñu koy waajal euh, fa mu jàngee ak fa mu mujj ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Niass Al Khalifa ca Kaolack daanaka tërbiyewu na ko tërbiyewu na Cheikh Mountaga Tall Touba boo demee noonu la fa meloon Tiwaawoon noonu la fa meloon loola mooy islaam loola mooy Sénégal li mu mës a pàcc-pàcc yi am ci diine ji li ma sa mooy islam benn rek la képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mbokkum jullit la te metti na musul bàyyi metti na mës ta bàyyi dañ ko laa wax ne ko yaan mag nga nag wéroo te ngaa toog mu ñu la liggéey l'islam mës wëwërta am retraite ci loolu daal ci la dund màggat comme ni ngeen ko xamee ba yàlla moom ko tey ñu ngi ñaan yàlla daal fële nga xamante ñu ko fay yóbbu xabaroom ba yàlla na nekk jardin ci jardin àjjana yi te rafet nañ ci ñot yàlla ni